Amis des spectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver si Tootu Zeka qui s'installe chez vous jërë ngeen jëf ci dalal bi ngeen ñuy dalal ci seen biir diwaan comme ni ngeen ko xamee rek Tootu Zeka ah, tout le temps dañ ci ànd ak ay ay ay kilifa ay ndaanaan ah, divers ah, yoo xamante ne ñoo xam fu ñu mënti jóge mais en tout cas dinañ leen teg fii waxtaane ñoom histoire ñu waxtaanee lu am solo alors aujourd'hui nous recevons Miss Sénégal 2020 Fatima Ndione GK maa ngi lay nuyu. di la nuyu ñi ñuy seetaan yëpp c'est Fatima Dione Miss Sénégal 2020 comme ni nga ko waxee. alors euh, Fatima Dione euh, dafa mel ni yow yaa nekkoon Miss bi ëpp buzz ci ci année yu ñu yu ñu yu ñu weesu parce que Miss Sénégal xawoon na kii tuuti mais yow moom bi nga jëlee sacre bi on a on a on benn euh, semaine boo xamante ne waaw. Miss Sénégal Miss Sénégal Fatima Dione comment tu as vécu ça. ah loolu loolu lañ gis de man maa nekk miss bi ëpp buzz. <laughs> ndax bëri woon na coow lool après sama saakri ñii di coow naan miss bi dafa ñaaw dugg na fii génn na fii coow li bëri woon na trop. Mhm. alors euh, d'abord pour nekk miss lan moo nekkoon critères yi. Euh, critère pour nekk miis euh, da ngay njool. Mhm. taille bi dafay nekk sa teint naturel. Mhm. niveau d'étude. ak euh, sa comportement et tout. ok sa niveau d'étude bi ñu doon exiger lan la woon. Euh, terminal. terminal ok ok yow bi nga koy def boobu yaa ngi def terminal. maa ngi def terminal. alors au lendemain de de de Miss Sénégal tu tu vois sur toute la toile euh, ñëpp di la waxtaanee euh, ban sentiment nga amoon yow. Mm, sentiment bi ma amoon euh, metti woon na ma au début mais après dama jàpp ne ay jeunes lañ. Mhm. te foo la Kaffrine te ku ci mhm. nekk euh, on était au nombre de quatorze. Mhm. ñun ñëpp ku nekk jóge sa région. ànd ak say supporters et tout. kon ñëpp mënuñoo bokk faral benn nit ki noonu rek laa ko jàppee woon. yow euh, lan moo taxoon nga bokk objectif bi nga amoon ci Miss Sénégal lan la woon. sama rêve la woon depuis euh, toute petite euh, moo ko doon seetaan mu may neex may gis miss yi di défilé surtout mannequinat mhm. mais ma ni mannequinat bi ma si noonu pourquoi pas ma tenter sama chance ci miss bi ma dem yàlla def ma am chance gagné ko mhm. amoon si attente yu bëri nag euh, comme dañ daan gis bu njëkk miis boo gañee da nga daan am ay kër oto am loolu léegi léegi tegal foofu sa baaraam attentes yi c'est bon mais est-ce que est-ce que bi ngay bi ngay bokk bi ñu leen di bokk dañ leen wax ne ku boo bokkee boo gañee lii ngay am am na lu ñu leen diggoon. non diguñ ñu dara mais comme que niñ niñ ko doon suivre di ko seetaan miss yi ñu doon gañe et pour ñun. loolu donc yéen yéen Sénégal bi fu mu nekk nii boo ci dugg en fait amul amul dara lu ñu lay dig. non duñ la dig dara moom franchement mais au moins am na lu luñ la ay dû ay lot ay bourse ay oto et tout loolu lañ daan gis miss yi di mais mais yow bu fekkee da ngay dugg ci dara te bi ngay dugg waxuñu la lii ak lii nga ci war a am donc est-ce que am na loo ci doon xaar. ah waaw am naa am naa si lu ma doon lu ma ci doon xaar kay parce que daan naa ko suivre te gis naa li mi si doon gagné pour man loolu mooy dem ba léegi. mooy dem ba léegi alors parlons un de de l'organisation donc de de Miss Sénégal comité d'organisation bi euh, yow ban jugement nga am ci ñoom donc durant compétition bi bi nga qualifié ci sa région muy région de Fatick. bi nga doon représenté ba ni nga ñëwee au niveau national euh, ñoom seen comportement ak ni ñu doon liggéeyee noo ko gisee. non ñu ngi doon def seen liggéey moom franchement ci euh, niveau au niveau régional ba ni ñu yegsee ci compétition nationale bi ñu ngi doon def seen liggéey moom normalement. donc amuloon dara loo xamante ne daana tey sa xel ci. non ci organisation seen comportement. déedéet. tout est tout était parfait alors donc mais tout était parfait ba ñu ne la. yow yaay Miss Sénégal 2020 comité d'organisation bi kañ nga leen gëj a dégg. ah, ah franchement gëj naa leen dégg moom. ñoom daal yu ñu ma man tamit toppatoo ma leen ñu ngi toog seen coin man tamit maa ngi toog sama coin. Euh, concrètement lan nga ci jëlee yow. lu ma si jëlee xanaa wax ju bëri mooy coow bi amoon après sacre bi et tout. Mm-hmm. loolu de laa si am loo xamante ni ni mën naa ni ci lii miss bi laa ko jëlee lu samay bourse yi ñu waxoon ni gañe naa ko. du oto yi ma si doon dégg du dara maa ngi nii. non mais attends Fatima ci ci kii bi ci ci ci ci final bi am na yu ñu diggee woon ñu ne da ngay am lii da ngay am lii da ngay am lii donc tu veux dire que ne liñ la liñ la diggéen yëpp joxuñu la ci dara. ah joxuñ ma si dara à part looyuñ ma jox euh, bi ma biñ ma woowee ne man maa gagné. Mhm. jox nañ ma foog naa paañ tissé. Mhm. fleur ak couronne beeg ruban <laughs> ak bourse yi ñu fa cité woon mais ba tey ñu ngi nii gisuñ dara. xaalis. xaalis non non. amul dërëm bu la topp ci Miss Sénégal. non non. mais est-ce que est-ce que au fond est-ce que yéen xamoon ngeen ne am na xaalis bu ci nekk est-ce que yëwoon nga ne am na comme tu l'as dit oto wala dara loo xamante ne mu ngi ci woon. Euh, waaw yëgoon nañ ko parce que amoon nañ ay sponsor ci compétition finale bi Miss Sénégal bi ñu ngi ko pare parrainé woon Sadio Mané. ak euh, ay ministre xam nga ni ñooñu duñ ñëw ak loxo neen. Ah, <laughs> mais xanaa buñ la tuddee dara di nga am loo ci war a mën a def mais ñun daal gisuñu dara bi sacre bi passé nag sama yaay déplacé wu na Fatick ñëw ba ndakaar Novotel lañ nekkoon. Mm-hmm. wax ak mu toog ak waa comité bii waxtaan ak ñoom ñu xamal ko ni kii de bu waroon a am benn dina am fukk parce que coow lim ci jëlee te bës bi mu am nii. Mhm. mosu koo am mhm. donc dinañ def li warloog moom yëpp mais ba sànq ak démb ñu ngi nii gis en fait dinañ def lu warlook moom concrètement la lañ dig sa yaay la lañ wax sa yaay ni dinañ la ko jox concrètement. dañ ni woon am nañ ay euh, promesse yu ñu war a jot. Mhm. loolu lañ waxoon sama yaay ne buñ ci jotee rek dinañ ma jox li ma ci am et muy xaalis muy xaalis waaw mais ba nii gisuñ dara. mais est-ce yow gëstu nga ba xam ndax ñoom jot nañ ko walla jotuñu ko. waaw sama yaay gëstu na parce que waxoon nañ ko promesse yi fan la war a jógee et sama yaay moom xam nga boroom affaire la dafa mën a lijjanti gëstu na yépp ba xam ni am na yoo xamante ni jot nañ ko mais ba tey revenir kon yow ba sa yaay. jógee ñë ñëwee Novotel ba waxtaan ak ñoom ba dem yow boobu ngeen gëj boobu leen ngeen boobu ngeen ngeen gëj dégg. waaw si laa leen gëj a dégg à part parfois daan nañ ma woo ay activités yu may ñëw def si fii nii delluwaat Fatick. mais activités yooyu boo daan ñëw di nga am prise en charge. prise en charge non parce que dañ ma daan envoyé pass oto laay jëlee Fatick ba fii nii Dakar. ok pass rek lañ lay lañ may envoyé ma dem garage. <laughs> <laughs> ma dem garage jël auto déplacé. loolu yëpp ah, ah, moo fa sës bi. c'est grave suñu Miss Sénégal donc moom pour mu jóge Fatick ñëw dakaar gannaaw ba nu ko tabbee ne mooy suñu Miss ñun national donc sept euh, places la daan jëlee Fatick di ñëw li nga xamante ne mooy Dakar pour wuy si ay activités boo paree tamit boo ñibbiwaat c'était la même chose donc on peut dire ne tey en tant que xale nga doon def terminal Euh, d'abord perturbé na lu bari ci yow. Mhm. Euh, est-ce que sa njàng perturbé wu ko. waaw perturbé na ko parce que dañ ma daan woo dama daan am cours war a jàngi ñu woo ma ne naa ñëw. urgence d' yooyu dama war a ñëw def activité yu tu ma bàyyi fa samay cours bàyyi fa lépp ñëw. mais yow activités yi ñu daan woo concrètement cest à ay activités wu lan la c'est-à-dire ay activités yoo xamante ne dara leer na ñii dañ ci jëlee dara. wala activité yoo xam ne dañ ko signé woon ay contrat kay sponsor je sais pas la la. je sais pas ndax dañ ko signé woon ay contrat mais bu ma fàttalikoo am na benn activité bu ñu demoon jam ñaajo mhm. mooy euh, bi Macky Sall di def je sais pas. Euh, kiiw sportif yi nekkoon foofu. Mhm. woowoon nañ ma ci activité boobu demoon naa fa à part ay publicité takkal sa masque yooyu noonu. Mhm. yooyu daal lañ ma doon woowee. à part émission yi ma def après sacre bi juste. yooyu lañ ma doon woowee. donc ce qui veut dire ne yooyu yow yow bi ñu lay woo ngay dem en fait duñ la wax dara lu leer. duñ ma wax dara lu leer yow sama téléphone bi rek nga am wala interview nga am voilà te sama yaay sax lañ doon dégganteel lu bëri. mais est aussi euh, ta mère euh, joué wu ci sa yaay est que tamit mu baal ma est que seetaanu la trop aussi. seetaan noo seetaanu ma benn yoon. parce que aussi Fatima jógal rek nga jóg dem. nga ñëw après ñoo ne la passe cette place nga yëg cette place dem pareil jëlaat cette place ñibbi. <laughs> waaw parce que passe cette place Dakar Fatick seerul. seerul moom. motul junni de. mi ngi noonu euh, mais sama yaay moom. non est-ce que 1500. waaw parce que Dakar Dakar Kaolack je pense 2500 la cette place. suñu jur donc Fatick warul yegg ay 1500 la wala 2000. yooyu tey Sokone laa doon jóge. ok ñëw ba Fatick ah, ñëw ba Kaolack. Kaolack door a jël oto. Ah, d'accord mais maire moom seetaanu ma benn yoon moom moo ci doon jàpp sax ndax ñoom bu ñu bëggee dara dañ lay woo neexal la wax wax ju neex et xam nga moom maire moom xol bi dafa oyof mu ne ma garaawul demal xëy na li ñu wax dinañ ko mës a def mais ba nii. alors pour yow tey boo doon situer responsabilité yi kan moo def loolu yëpp. Hmm, peut-être c'est la présidente parce que moom moo jiite ñëpp moom moo yor ñëpp. moom moom euh, sa doom baay. sama doomu baay. wala santum Njool. non non Badiane la ah, sant ah Badiane la sant nan Badiane sax. Amina Amina Badiane. ok donc Aminata Badiane euh, présidente bu euh, comité Miss Sénégal moom moom ngay joxoñ ne c'est elle la responsable de tout ça. Mhm. moom moo waral lépp parce que moo ñu jiitee ñun ñëpp lu mu ne lii la lool la war a doon je pense. Mhm. lu ñu war a def tamit bu si jiitoo jaarale ko si yoon dina jaar yoon. Mhm. est-ce que yaakaaroon ne moom li mu waroon am yëpp am na ko. ah je sais pas de. non en fait parce que est-ce que bu ko amul woon dina am courage pour continuer parce que su ma juumul dégg naa ñu ngi ci bu euh, édition bu 2021. Mm-hmm. donc bu fekkoon jëlewu ci dara est-ce que tey day dina dem naan mu ngi defaat 2021. ah comme mooy li ma la wax rek promesse yi ma ci doon xaar mooy xam nga sànq yaa ngi ma ko doon laaj say biir question que ndax topp nañ ko ba xam ndax. jot nañ promesse yi ñu mu waroon a kii et mooy la kon jot nañ ci ndax xanaa bu ñu yorul woon li ñu li leen war a mën a mayaat départ pour 2021 duñ ko def. Mhm. mais yéen boo leen di boo leen dugg ci Miss Sénégal ci côté sponsoring ci côté engagement amul benn kayit boo leen di signé. à part euh, signature contrat pour ku gagné Miss bi contrat bi looy dugg da nga leen ko war a yëgal waroo amoo droit def lenn sans nga yëgal leen ko. léegi yow ci contrat boobu defuñu ci liñ la war a jox. non non et pourquoi vous signez ce aussi. ah gëm-gëm rek yaakaar ni tamit ni niñ ko doon gisee ci tele bi noonu la nekkee. wala da nga yaakaar ne da ngeen nekk ay xale moo tax ñu leen di nax. waaw peut-être que bu fekkee nax lañ ci jublu tamit amuñu chance. parce que waaw mais nañ ko jàppee ne nax la parce que ki la ki la ki la signé loo contrat. waaw ne la ne la boo gañee waratoo def dara lépp man looy def man man sama loxo la war a jaar sama loxo lay ci contrat boobu war na bind ne que ne boo gañee aussi. lii ak lii di am lii di am lii. mais boobu comme que ñëw nañ ba foofu dañuy xuus directement rek dem luñ ci kii muy loolu yaakaaroon ni tamit niñ ko doon gisee ci télé bi mhm. noonu la doon demee. Mhm. est-ce que aussi ah, xam nga tey dafa bëri ci Sénégal euh, bëgg feeñ walla bëgg a siiw en quelque sorte dafa dafa dafa solal ñu bëri. mi ngi noonu est-ce que tey gisoo ko ne day ñii di bokk ci Miss Sénégal yëpp tamit aveuglement. moo tax ñu ciy dugg ba après lépp lu leen ci fekk aussi def est-ce que tegu leen ko seen bopp en quelque sorte. waa ku nekk ak li la intéressé am na ñoo xam ne titre bi moo leen siy dugal. Mm-hmm. am na ñoo xam ni buzz bi. Mm-hmm. mais titre kese ñu jox la ko tamit te joxuñu la loo xamante ni nii moom moo ko war a accompagner. Mm-hmm. du dox parce que Miss Sénégal nekkul loo xamante ni lu ndaw la. nit ñi dañ lay yaakaaree lu nekk foog ne yaa ngi ak àdduna ak li si biir fekk yow jotoo si dara. te dañ naan aussi titre bi buñ la ko joxee danga nga war a changer. sa accoutrement sa comportement ni ngay sa lépp daal. Mhm. xam nga duñ la jox titre ne la yow yaay Miss Sénégal rek ne la demal noonu. Mhm. di au moins war nañ la jox loo xamante ni di nga ci changé comme ni ñu waxee defar sa bopp toppatoo sa bopp et mais loolu yëpp ah man de moom joxuñ ma ko wax dëgg yàlla. yow daal yow daal jëlewoo ci dërëm. ma si dërëm courant fleur. ak paille ak coow lu bëri. ak coow lu bëri. <laughs> ñu ngi ànd ak ki nga xamante ne mooy Fatima Ndione Miss Sénégal 2020 ci li nga xamante ne mooy Tok-Tou euh, Zeka moom la ñuy la ah. euh, dañ ngeen euh, lépp li nga xamante ne rek jël jóge na fi lépp li nga xamante ne wax na ko fi ci li nga xamante ne moom la ñu diggee woon ak moom ci Miss Sénégal te te joxuñu ko ci dara alors tey Miss Sénégal impacté na sa vie lu bëree bëri loo xamante ne tey mën nga jàpp ne sax boo. est-ce que boo delluwaatoon cassette bi si ginnaaw est-ce que di ci bokk. noonu non bu doon lu may defaat la moom du ma ci dugg parce que coow lu bëri laa si jëlee liñ naan cat tamit bu rayul semmal mhm. coow li jàppoon ma am na euh, temps sax feebaroon naa fi ba génnatuma kenn gisatuma woon fenn. Mhm. ma tëju toog nekkaat ci sama bopp di defar sama bopp. Mhm. bu doon lu ñuy defaat moom wax dëgg yàlla du ma si dugg. donc tu naa moom <laughs> parce que li ma si doon xaar yëpp fekkuma ko ci. Ah. donc tu as complètement regretté d'avoir participé à, à cette compétition. Mmh. est-ce que tey euh, comme j'ai dit ci ci ci séquelles yooyu mu def ci yow est-ce que sa njàng bokk ci walla dara. waaw sama njàng perturbé wu na parce que maa ngi doon raté ay cour mm-hmm. cours yooyu noonu ñu doon toog di wax naan. Euh, parce que bi ñu demee ba ses dañ ni ñoom si jàng bi lañ gën a focaliser wu côté éducation. Mm-hmm. ñu doon wax naan dinañ ma paye ay cours particuliers et tout loolu yëpp defuñu si dara suñu waa école sama waa école bu ñu leen doon woo sax mujj gi daanuñ leen nangoo lu ñu leen jël. ok donc ñoom amoon nañu contact ak sa waa école. waa amoon nañ contact ak sama waa école parce que dafa am ay euh, reliquats yu ñu waroon a fay foofu. ak samay cours particuliers yoo xamante ne waxoon nañ ni dinañ ma defal ay cours rattrapage tout. Mm-hmm. mais loolu yëpp defuñ ci dara. ok ok mais léegi tey yow ban jéegu nga foog ne nga war a def pour rectifier walla tey sa injustice bi nga subir ñu réparer ko. ah xanaa. comme ni ma ko waxee sànq rek euh, tëju naa defaraat naa sama bopp macha allah. Mhm. ku ma gis moom xam ni moom instant yi moom. alhamdulilah mais lépp ak sama famille sama entourage ñoo ma jàppale ba ma jogaat mhm. pour ma réparer loolu nag mooy ma jéem a concentré waat ci samay études xam li ma bëgg jéem a avancer de l' avant. non mais quand je dis nga réparer injuste boobu mooy par rapport ak ñoom ñoom da ngay toog rek di leen seetaan nii. ah waaw. mënoo leen dara mënoo leen dóor mënoo leen xas mënoo leen wax dara seen parole lañ am man tamit sama parole laa am xëy na tamit ku seetaan di nga xam sa xel dina dellu si li la siy dugal et mais ñëpp tamit bokkuñu loo xamante ni moo leen siy dugal ku nekk ak liñ ci xaar uh-huh. mhm. parce que aussi quoi qu'on nous dise Miss Sénégal euh, est-ce que ci côté tutelle ci ban ministère la la jokk ministère du tourisme euh, culture culture ok donc est-ce que tey je sais pas sa yaay tey bu fexe woon dem gis ministre bi waxtaan ak moom wala gis ñi nga xamante ñoo nekk ministère de la culture. waaw je sais pas trop peut-être pour que ñu jéem a réparer quand même injustice bi nga subir parce que comme tu as dit bu ñu demee ba ay bor sax fekk la ci sa école bi nga xamante ne fa nga fa nga nekkoon quand même c'est grave mi ngi noonu mais ñu ngi ci ñu ngi di dox si loolu pour rencontrer ñi nga xamante ni nii ñoom la concerné ak samay autorité dëkk et tout comme ñoom Matar Ba. Mhm. monsieur Abdoulatif Coulibaly et tout ñu ngi mhm. ci tànk yooyu noonu. Mhm. alors c' vrai que yow euh, région de Fatick nga doon représenté donc euh, monsieur le ministre Matar Ba. foofu la nekk ak monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly donc ñoo ñëpp waa moom waa Sokone la d'ailleurs waa Latif Coulibaly waa Sokone la d'ailleurs sax bi may dem ci compétition bi jàppale nañ ma bu baax Matar Ba mhm. ak euh, monsieur Abdou Latif Coulibaly mhm. jàppale nañ ma bu baax ah, kon yow jot ngaa ñam de ah, jot naa ñam ne loolu bi may dem la te du feeñ fenn ndax say supporter <laughs> yaa leen paasal yóbbu waaw yaa leen paasal jëndal leen billet et eh. mhm. <laughs> ministre jox na <laughs> Ah, Fatiba. ah ministre bi ma jox fi ma ko dugal laa ko war a dugal foofu ko dugal. ah si supporters yi. seen lekk seen naan. waaw ndeysaan billet yi. billet yi et tout ça oto yi leen indi. jëlee leen Sokone ba Dakar jëlee ñu Sokone ba Dakar. ok ok alors euh, tey ñoom ñu ngi nekk ci li nga xamante ne mooy seen édition 2021 est-ce que booleel nañ la ci loolu seen. non boolewuñ ma ci à part benn jour woote nañ sama yaay ne dañ ma soxla pour benn plateau lancement bi 2STV. mais après dañ ko woowaat ne grawul jarul may ñëw après dinaa am sama plateau bopp. léegi yow bu ñu la wooyee da ah décidé wu ma ko moom wax dëgg yàlla parce que bi ñu wootee lool sama yaay da leen ni kii dootul jël ay oto sept place di dem ba dakaar te ngeen koy envoyé passe bu doy mu loué oto Sokone mu indi ko ba dakaar mais après dañ ko revenir ne na ko bàyyi dina ñëw plateau. non mais je veux dire le problème c'est pas un problème yow li li ñu warloo woon ak yow defuñu ko ñu bëgg la woowaat nga jóge Sokone ñëwaat Dakar def ay plateau. c'est ça mu ngi noonu décidé wu ma bu ñu ma woowaatoon instant bi tamit moom wax dëgg yàlla décidé wu ma dem. Hmm. parce que faale wuñ ma man tamit faale ma leen noonu la. koo lijjantiwul moom lijjantiwul la. kon daal yow comité Miss Sénégal pare nga ci ñoom. pare naa si ñoom. maam euh, comment elle s'appelle euh, Aminata Badiane mi nga doon wax mooy seen yaay mooy seen lépp. Ah, yaay ak doom. noonu de la demee. mu ne ko yaay ak doom war a mujjee noonu. <laughs> ak ah, xëy na xelam foofu la toll rek. alors Fatima euh, ba léegi ah, dañuy des ci parce que man je man en fait man dama choqué <laughs> sincèrement je suis choqué de tout ce que tu tu viens de dire ici que ne euh, lépp lu ñu war la woon ak yow def mais tamit euh, beneen question bi c'est-à-dire est-ce que sa yaay aussi matte na parce que dafa mel ni mooy sa ménageur en quelque sorte. waaw moo yor sama lépp moo yor sa lépp mais est sa yaay aussi moom xam na ce qui se passe dans le milieu est-ce que sa yaay. Euh, moom xam na carrément li xew ci milieu bi pour pour mën a nekk sa manager. xam na ko xam na ko bu baax sax d'ailleurs da doon dégganteeg ñoom ay vocal whatsapp et dem nañ sax ba sama yaay mi ngi leen doon laaj naan leen kii li ngeen warloog moom jox leen ko ko. Mhm. mujj gi ñu naan danga bëggee. ñu ne sa yaay daa bëggee. <laughs> loolu de la ñu wax ñu ne dama bëggee dama tiit xale warul xaw ma nan la ko waxee. warul vocal waaw. ay vocal whatsapp mhm, envoyé ko sama yaay te moo doon toog si fu mu toog di ma tàgg naan yaru et ma ñëw di laaj samay ju mu tourné ne dama bëggee xale warul bëggee xaw ma nu mu waxee noonu ba toog léegi man man dama a jàkkaarloo caméra bi Aminata Badiane nga wax ko limal ko li mu la ameel te joxuloo ko ak préjudice bu mu la porté nga wax ko ko mu dégg ah maa ngi koy wax ni li mu warloo ak man yëpp na ma ko jox samay oto yiñ ci doon dégg. Mhm. parce que bu yàggul dara maa ngi gis seen statut ñu ngi euh, statut benn euh, oto mais pour la Miss 2021. Okay. donc ñoom nan comment ça se fait 2021 ñu lijjanti loolu te mënuñoo lijjanti bu 2020 li ñu warloog 2020 yëpp defuñu ko. Mhm. ñuy lijjanti bu 2021. ok kon li ko warloog man yëpp na ko def balaa muy jàll ci leneen. Mhm. te yow moom bu ko defulee cest à doo ci def dara comme j'ai dit sa yaay tey mënul déclancé benn benn benn procédure judiciaire parce que quoi que l'on xam nañ ne am na sponsor yu leen accompagné woon sponsor yooyu seen image yéen def ci jàll seen image véhiculé na sponsor boobu est-ce que tey amul dara loo xamante ne mën ngeen ko jóg pour def ko par rapport ak ñoom pour ñu réparer injustice boobu waaw peut-être mën na nekk mën nañ si jóg mais xam nga li ñuy wax naan looy régler lu nekk da nga koy régler à l'amiable bu doxul. Mhm. nga doog a. utiliser yow fu nekk nii est-ce que l'amiable am est-ce que amiable weesuwul tamit. parce que ñoom xamuñ négocier xamuñ maslaa lu lu ñëw seen xel rek loolu lu leen neex rek la ñuy def. Mhm. mi ngi noonu kon nag xam naa dinañ mën a dem ci beneen méthode bi rek bu ko jaree aussi. Mhm. est-ce que doo changer ménageur tamit. <laughs> sama yaay mot lim doon de. ah déet mère nag mère moom xam naa ne moom xam naa ne daal mère daal des na daal dafa mel ni daal moom parce que man comme j'ai dit euh, comme ni ma dégg euh, nga waxee sa yaay elle est instruite. Mhm. c'est une enseignante. donc nan ngeen mën a signer contrat boo xamante ne da ci jël ay engagement ci sa image ba pare fekk yow amul benn engagement bu ñu jël si li nga xamante ne waroon nañ ko ak yéen. ah contrat yi bi ñu koy jox ñu koy signer si jour J bi la bi jour final bi jour final bi xam nga bi ñu nee suba la final bi lañ ñu indil contrat yi booba stress beeg préparation yeeg et ñu indil ñu contrat da ngay lire vite fait nga signé. kon yow est-ce jàppoo ne ko ñoom ñoo ko tey. ah peut-être que tamit noonu la. ñoom ñoo ko tey indi ko jour ba parce boo koy jox nit xanaa war nga ko jox jour bi ñu yegsee ci hôtel bi lañ ñu ko waroon a jox en contrat bi depuis depuis compétition régionale bi la waroon déparé waaw parce que depuis ci région yi ci lañ commencé jël seen image di ko wane télé kon est-ce que jàppoon depuis ci région yi la ñu waroon signé contrat yi normalement si lañ ko waroon a joxe ñu xool ndax arrangé nañu et tout mais si jour ji xaw ma bi ñu nee suba la la ñu jox contrat yi ñu lire ko vite fait signé yow yaa ko liir wala sa yaay moo ko liir. man maa ko liir man kese maa nekkoon otel miss miss yi kese ñoo nekkoon si hôtel ba. ok amu leen kenn ku leen di accompagner. non non à part bu ñuy ñëw si hôtel bi bu ñu accompagner ba ñu yegg dañuy ñoo ñi ñu gungee dañuy dellu retourner ñun kese ñoo doon ne si hôtel bi. et et et sincèrement est-ce que tu penses que ça c'était normal le fait que ñu jox leen yéen ay xale contrat ngeen signé ko parce que quoi qu'on dise ay xale ngeen ah. c'est ça c'est pas normal ndax mënoon nañ ñu ko teel a jox ñu ñuy suñuy manager et tout lire contrat yi xool bu baax li ñu ci arrangé ak li ñu ci arrangé wul ndax lii arrangé nañu wala lii dinañ ci mën a dox ou pas ñu signé ko mais gis nga niñ ko defee profité ñu ñu signé contrat yi tout doo mën a dellu ginnaaw tamit ndax ñëw nañ ba ci jour J bi ñu naan suba la ak du suba ñu indi la contrat doo def lu dul signé. En tout cas, nous, nous rendons un, hommage à, à Moïse Ambroise Gomis quand même. Euh, yàlla na ko yàlla yërëm taxaar ko aljana moom am na fu fu kawe fu mu yóbbuwoon Miss Sénégal am na valeur yu yu am solo yi mu defoon ci Miss Sénégal ak fu mu nekkoon ak fu ñu ko tegoon euh, on n'a rien contre cette communauté actuelle qui est là d'ailleurs euh, Aminata Badiane on a eu à faire des plateaux télé et macha allah jàppale woon nañ ko ci li nga xamante ne mooy Miss Sénégal boobu. ci suñu liggéey bi ñu doon def mais je pense que il faut que aussi ñoom tam ñu revoir seen méthode pour quand même euh, pour l'avenir et, et tout ça pour xoolaat kii alors euh, doo naan sa buy <laughs> wala marulo <laughs> maru ba yow nag dafa mel dara naqarewul <laughs> waa gis nga rek lépp dañ koy régler ak xool bu féex hmm. firi yu mën si génn boo demee ak xat-xat tamit fajul dara hmm. léegi sa njàng mi est-ce que yaa ngi koy continuer waaw maa ngi koy continuer ndax bu yàggul dara ci seen ay wax ñëw nañ laaj sama yaay ay papier mm-hmm. dajale nañ papier yi ñu laajoon yëpp jox leen ko ñu ne xaw ma dañu am dama am bourse ITECOM ñu ngi koy lijjanti nag actuellement keroog sama yaay mu ngi leen di laaj fan leen fan lañ ci toll euh, coordonnateur bi ne ko dama am décès mën daal yow it yow sa yaay jaaxal yéen yéen boobu yow sa yaay da ngeen mel ni ay kii dañuy wax leen benn affaire def li nga def bu saa yu leen neexaatee ñu ñëw ne leen lii ngeen joxewaat ñu defaat. ah waa nu ñuy def parce que ñoom ñoo toog ba mu neex leen ñu ñëw woote ne am na fu ñu lijjanti bourse ITECOM. Euh, sama yaay kon ci lijjanti ah, ñu wax te bourse yooyu ñu waxoon ko annoncé woon ko ci final bi ñu annoncé woon ko Suisse foog naa amoon naa sax bourse Suisse. mais xaw ma loolu lan moo tax mënuma ko utiliser parce que bourse foog naa bu ñu la ko mayee yaa ko moom. Mm-hmm. yow yaay xool loo siy def. effectivement. mais après dañ ñëw di wax ay wax yu kenn xamul la fois passée nag ñëw nañ laaj sama yaay ay papier sama yaay dajale na papier yëpp jox leen ñu ngi ci woon si lijjanti bi sama yaay revenir leen laaj leen fan ngeen si toll mu ne coordonnateur bi ne ko dafa am dese na ko may ba fan yi xaw ma. coordonnateur bi. Mhm, Seydina. mooy coordonnateur bu comité. Miss Sénégal Miss Sénégal. Mhm. donc euh, moom moo moo ñëwoon jël ci papier. ci sa mhm, waaw d' donc mais est-ce que ñoom ngay xaar pour say études quand même. xaaruma leen pour samay études maa ngi def samay démarches pour euh, commencer waat samay études et nekk ci yeneen projet surtout projet bi ma amoon normalement waroon nañ ma ci mën a jàppale. Mhm. ndax bi may dem mi Sénégal amoon naa projet. Mhm. mooy réinsertion socio-professionnelle des. Euh, enfants vivant avec un handicap physique mhm. mooy xale yi nga xamante ni ñii dañuy tëx ñii duñu duñu xam ma nan laa ko mën a expliquer daal handicapé yi mhm. ndax en général sama yaay ci côté boobu lay yëngu centre la nekk foofu noonu de ce fait bu ñu leen formé ci centre boobu ba pare bu ñu paree dañuy delluwaat du ñu am du ñu am suivi daal li ñu jàngoon yëpp dafay nekk à zéro du ñu am suivi projet yooyu laa amoon normalement waroon nañ ma ci jàppale pour ma jàppale leen au moins dem seeti leen Euh, ubbi centre pour bu ñu paree ñoom seen ay études ñu am si lu ñu mën a jàpp lu ñu mën a am baax na. Mhm. mais jàppalewuñ ma si dara ñoom daal dañoo toog rek di ma seetaan. léegi yow ñoom toog nañ dina seetaan est-ce que tey jotul nga nga fëgg yeneen buntu quand pour mën a réaliser sa rapport. Mhm, instant yi maa ngi ci démarche yooyu maa ngi wut ay audience ci ministères yi samay autorité dëkk. Mhm. ay ñoom Matar Ba Abdou Latif euh, ak maire de la commune de Sokone. Petit Gueye Petit Gueye daanaan. <laughs> d'ailleurs sax moom tamit maa ngi koy remercier de passage. parce que bi ma gagné may na ma terrain. ah macha allah. Mhm, may na ma terrain Sokone. Mhm. Mhm. d'accord léegi euh, concrètement lan mooy projet yi. projet yi mooy comme euh, li ma wax sànq mooy projet bi ma amoon bi may dem mi Sénégal ñu jàppale ma ci ma jàppale xale yooyu nga xamante ni nii dañoo am ay euh, handicap. léegi loolu ñan nga ci woo. maa ngi ciy woo samay autorité dëkk ak képp bépp bonne volonté boo xamante ne nii mën na ma jàppale rek euh, xeebuma dara que ça soit muy seen doole seen xel matéri matériel lu nekk lu lu ñu indi daal baax na man xeebu ma dara naa am lu ma leen jàppalee rek ndax man tamit sama yéene rek laa am mhm. aw ma dara aw ma ku ma jàppale ñu ma waroon jàppale jàppalewuñu ma donc maa ngi woo képp koo xamante ni nii rek dina ma mën a jàppale pour ma mën a doxal projet boobu noonu mu ngoog l'appel est lancé Fatima Dione Miss Sénégal 2020 donc mooy jublu ci li nga xamante ne euh, projet pour jàppale ay ndaw yi nga xamante ne dañoo ànd ak euh, yenn feebar yi euh, donc pour mu dimbali leen képp koo xamante ne bonne volonté nga euh, rawatina ministère bi nga xamante mooy ministère donc de la culture euh, monsieur Matar Ba mais bu dee joxewoon woon na sax ñu ngi koy xaaraat bu moom bu baax ah, sax. monsieur le ministre Abdou Latif Coulibaly ah, donc euh, le premier magistrat de la ville de Sokone euh, Petit monsieur le maire moom it ñu ngi koy xaar ak ñëpp ñi nga xamante rek mën nañ ko gunge ci projet bi ndax moom mu mën a euh, taxawu ay ndaw yoo xamante ne peut-être ñu ngi foofu ci Sokone wala ñu nekk feneen. Mm-hmm. mu mu mu leen bu baax a baax a baax a baax bu ko defee rek mu mën a mottali li nga xamante ne mooy yéene bi mu amoon ci. ba muy dugg ci Miss Sénégal alors comité d'organisation bi Miss Sénégal encore une fois ñun on a rien contre vous dañuy waxtaan rek pour waxtaan nag euh, on sort juste les faits parce que quoi que l'on dise Fatima Dione quand même elle a été victime donc ti loo xamante ne Sénégal yëpp teg nañ ci seen bët d'abord ba mu gañee gis nañ semaine boobu yëpp la ca toppoon ah ñun ñii sax ñun ñëpp naqari woon nañ parce que man sama xarit la sama chéri la donc voilà mais on li ci topp donc moom na je que ne tey Euh, waroon na bokk ci miss yi nga xamante ne waroon nañ leen gën mën a jàppale d'ailleurs loolu la ñu waxoon sa yaay. loolu ah, la ñu ko ci daal yëpp bu dee benn lañ doon def def fukk mais est-ce que aussi corona tamit si la bokk mais corona ñëw na terewul nit ñi ñu ngi doon dox seen ay activités et tout. Mm-hmm. Mm-hmm. donc yow daal jàppoo ne corona moo kor gaay ah. <laughs> mooy nekk dernier kàddu gi. ah di la remercier ci invitation bi di remercier sama yaay sama famille. est-ce que doo changer manager tamit mère <laughs> mère baa ñu wuti beneen manager. mère mot na lim doon de ak a mën booram. <laughs> ah. <laughs> loolu rek lay def ñu ngi bu baax a baax a baax. di leen remercier ñoom ñëpp di la remercier ci invitation bi. au plaisir au plaisir merci beaucoup merci beaucoup amis téléspectateurs. Toctouzeca vous revient beneen yoon ci beneen numéro ak yeneen daanaan jërë ngeen jëf.